amul fa am ban. waaw moom fa la booyoo dëpp nag. waaw waaye daal dañuy. pare boobu ba léegi sàpp boobu ba léegi sàpp foofu yooyu ña fa dikk ay ñaari agent ba di taxaw fu ñuy jaar sàpp lu toll nii sàpp foofu yooyu. dama la laaj fa lañ jaar lii lii dama mën a ci sàpp foofu yi. xam nga sàpp amul matériel boo xam ne. moo am na booy bu lab ci ndox mi léegi ba faatu yéen a ngi gis a gis lii nit ñaa ngi ne wër ko benn booy bu lab léegi ba faatu ñun ñoo ngi nii gis ngeen koor bi yaa bàyyi koor bàyyi nii yéen a ngi koy gis koor bàyyi nii xale bu ndaw la les âge de quatorze ans douze ans treize ans à l'âge de neuf ans gis ngeen moo ngi nii léegi la xewee Touba yoon daaw ñun dañoo sonn ñun barki yàlla